ñetti milliards ci wàllu koppar ci ab xaalis bu kii di rëg-rëg bu d'accordee man koo jot ci benn ngoon <laughs> loolee xam naa ne nag gaañu na ci làmb ji fii ci Sénégal nag dana leen defiree koi parce que fii ci Sénégal yaakaar naa ne làmb ji ci gën a seer day doon deux cent millions d'euros yoo xam ne daanaka xobet xobet est-ce que loolee sax yomb na bu baax a baax même muy jërëg rek ah war a mën a am loole di alal ju bari ñëpp yéene ko ko nag tey ñaan contrat bi gaaw tegu ci temps Real Madrid ay euh, euh, football katam entraîné nañ tey jii ñu mën cee ràññee Kylian Mbappé lu Luka Modric ak Mbappé di ñeenti ñi nga xam ni bokk nañ ci machine yi war a yor équipe bi la di Real Madrid maa ngi leen di ziar di leen bége di leen ñaanal jàmm ak salaam encore une fois ci kaddu gi xibaaru digg bëccëg gi seen mbokk seen xarit Aladji Malick TV abonnement yi maa ngi sàkku képp koo xam ne yaa ngi seen bi nga ban cee des ginnaaw ndax dana taxalu luñ dugal nga mën ko am mbir maa ngi nii Rodrigue euh, bala bala noo dem ci ki nga xam ne mooy sunu mbër mi di Reug Reug ñu dem ci Tanzanie mii nag Tanzanie nag lu ko waral mooy nag euh, boo amul chance euh, dinañ ko disqualifier seen football kat bii ñuy tudde ki nga xam ne mooy Mohamed Ibrahim nekk ci benn kilo bu ñuy wax mu Moussa ja moom moomee nag euh, di gone gi ndekete dossard 26 bi moom lañ ko doon bàyyi mu koy footballé mais nag match bii nga xam ne ci feuille de match bi ñu ngi ci gis numéro de Sarr 24 bi nga xam ne moom lañ teg ci taabal ji te euh, numéro bi mu daan footballé ñu xamee ko ko moo nekk 26 nag loolee nekk ay mbir yoo xam ne yu jaxasoo la ba moo waral moom gone gi mën naa tax ab équipe am euh, ci faute euh, at ci faute administrative bi mën na cee indi jafe-jafe ab kël ab équipe am di équipe nationale bu Tanzanie ba moom moomee ñàkk match bi mu football boobee nag eh, waa Guinée dañ fi profito bu ko defee nag ñoom ñu daal di jël victoire boobee daal di mën a jàll ci coupe d'Afrique boobee loolee gone kaaf yi ñu ngi koy seet di ko xool bu baax a baax bu fekkente ne mbir la moo xam ni lijjanti nañ ko mu demee noonee maanaam Tanzanie day toog bu ko defee Guinée Conakry sunu dëkkandoo yi mën a dem ca coupe d'Afrique boobee nga xam ni giraas yi ak i ñoñam war nañ caa mën a wane seen bopp bu baax a baax pot bu toll ci 3 milliards ci wàllu alal moom mii di Reug Reug di international sénégalais bu fekkente ni nangu na euh, euh, digganteem ak ki nga xam ne mooy nganu nganu nag ci boo boobee dil dana ca am lu toll ci euh, juróomi milliards ci wàllu xaalisu CFA <laughs> mu doy waar gaa yi xam naa da ngeen naan ay gént ñetti milliards yàlla na ko jot moom mii di Reug Reug ndax daj na lu ne ci làmb ji mi ngi def loo xam ne lu mérito la lu baree bari ci wàllu koom-koom kon boobee information wadd na léegi waxtaan yi nag ñu ngi wéy di jub ta xam naa ni moom mii di Reug rek du ko bañ yaakaaruma ni dina bañ boobee xaalis ci genn ngoon te it ñi mu àndal di ñi nga xam ne mooy manasaram daanaka ak ñi nga xam ni uh, di papaam mi ko jige lool ñoom ñëpp dinañ lijjanti ba loolee gaaw sotti xam naa ni Aziz Ndiaye mi doon teg ci taabal ji un milliard moom xam naa ni doy na waar boobu doy na waar lool uh, ci moom ci li nga xam ne yoojee làmm fintoon nii kon mbir ma daanu na ñu ñaanal ko jàmm ñaanal rek rek ñaanal Sénégal bu ko defee mu mën a bëri bu làmb jooje ci jàmm mën a dir si ci Sénégal meilleur jaa ngeen jëf ci topp gi ci kanam yeneen information ci kanam tuuti